salaamaaleykum gars yi waaw maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp Boña la ñu ngi nuyu monde lamb ah waaw di wax ne xeexoo bu mag moo am muy face à face Boña Tapha Tine incha allah képp kuy dund lamb ñu ngi lay woo Boña Tapha Tine seen fees su fees cappaacoo yi nag bu doon des ginnaaw waa bu jeex rek jeex na ñëpp incha allah suñu boom defal ñun tam gars yi dina xum dina neex te kon bu ñu ànd ceeg promoteur bu mag bi Pape Kallis ak Leewtoo TV ah di am contentement jënd ak yéen chaque nee naa leen mbégte bi nag mooy di leen fës ci xibaaru làmb ci noonu damay nuyu Mbaye Babacar ma feggool daal di ñëw jukkil leen li fës Mbaye maa ngi lay nuyu. fay wante maa ngi nuyu bu baax a baax suñu xarit yëpp yi nga xam ne jamono bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV lépp la nga xamante ne bii information làmb la rek ñu ko fiy xaar ñu ngi am mbégte bu baax ak contentement ci ñoom. réew mi nag ki koy may mooy bi ngeen di tuddee sans cholestérol

wàññi mu moo ci topp di ndox mi nga xamante ne bii macha allah ndox mu set la sell neex yaakaar naa am na loo ci yóbbul sa papa bërki démb ba nga demee apprécier na. nee na ndox mi neex na set na mais paabu paa la dégg naa. Mhm. ak li. ak li muy compliqué yépp nee na ndox mi sell na set na neex na oyof na kon daal Eau mooy ndox mi ñuy aar. muy noonu ndox mi ñuy aar la vendredi 4 juin 2021 damay ne saraax damay xel di xam ne nag di Makan Kan doomu Gaston Mbengue la doomu king de l'arène sénégalaise mën naa ne kon mooy le prince de l'arène sénégalaise. Uh-huh. damay xam ne fii naa nee na boo duddoo mi nga xam ne nii mooy roi des arènes bu bëggee ñu ko trois avance mu def ko ay moromam. boo nee saraax ci biir journal bi danga ma fay fekk ma ferenkulaa yu toog di la xaar makankan mën a Modou Lo bu pare ñu jox ko ñetti avance ku ci mel ni Balla Gaye euh, wala Bombardier wala Eumeu Sène nee na euh, su Modou Lo paree mën nañ ko jox ñetti avance yooyu mu dugal ci poosam comme niñ ko joxee ki nga xamante ne bii moom mooy Balla Gaye wante tamit nee na Ama Baldé ak euh, Gris Bordeaux combat bu bëgg nañ ko intéressé na leen te ñu ngi ciy dox ko ñaar ñi nga xamante ne bii daal bokkaguñu ci seen ay plan mooy lag 2 ak tafaatin la bokk seen plan bañ daal di koy planifié di ko ci journal nag mooy combat Balla Gaye ñu nar a bëree du 31 juillet au décembre 2022. Uh-huh. Uh-huh. kii di Bombardier moo ko ubbi ëmmal seen borom taay si borom def du wér moo ko def mbaa Bombardier moo koy ubbi incha allah bu ci yàlla àndee le 31 juillet 2021 fële ca arène nationale wante ka cay topp mooy Boy Niang numéro 2 le 2 janvier 2022 lay doon ki koy ñetteel mooy Gris Bordeaux incha allah mois de juillet 2022 lay doon wante Eumeu Sène moo koy tëj incha allah mois de décembre 2022 incha allah mu mel ni Balla Gaye ñeenti combat nga koy xaar ci kanamam. tey nag kii di Ama Ama Konaté. Mhm. mooy favori yëkkati yooyu la kàddu ci journal bi. nee na Tyson 2 moom mooy favori ci combat bi wante nag du nekk lu yomb ci moom ndax Franc dafa nekk ci dinamiku victoire tegle li nga xamante ne bii mooy juróom-ñeenti victoire te bu ñëwee loolu lay bëgg a da koy bëgg a fukkeel nee na ki nga xam ne moom mooy Tyson 2 moo gën a nekk xele wante loolu nag mën na bañ a jouer ci combat bi mais leneen lam ca teg mooy nee na ñoom ñaar bu ñu jàppantee amateurs yi nekk ci stade bi wala képp ku nekk ci stade bi boo xefee mën ngaa bañ a gis li nga xam ne mooy jël bi.

jël na ko mbuur jël na ko Fatick 2019 la woon ak 2021 journal bi nee na gannaaw ba mu teglantee loolu nag ñu ngi koy xaar bu baax a baax a baax ci li nga xam ne moom mooy bëre door bi combat bi war a dox ci digganteem ak Fils de Balla waroon a am le 13 juillet incha allah mais combat boobu nag xam na ne dafa foom moo amatul ñuy ñaanal Fils de Balla bu baax a baax mu dellu siwaat ci làmb ji wër ak jàmm bu dellu siwaat ci làmb ji te noonu nag écurie Thiaroye dañuy fusionné mu nekk benn Thiaroye Cap Vert ak Thiaroye Digal ñu fas yéene doon benn wante fa yemuñu ci ñaari écurie yooyu kese ndax bëgg nañoo boole caaro sur Mer bu njëkk bi ak bi nga xamante ne bii mooy Thiaroye Cap Vert bool dolli ci caaro Thiaroye gëm sa bopp bu ñoom baay ma Baye caaro Thiaroye avenir bu àll gay ñeenti caaro yooyu lañ bëgg a boole. def leen mu nekk benn écrit ki am boobu xalaat nag mooy Baye Mandiaye nee na mi ngi ciy dox ay tànk ngir caaro yëpp booloo doon benn écrit ndax mbooloo mooy doole wante caaro yu gëm sa bopp ak caaro yu avenir ñoom ñaar ñoo d'accordagul mais loo ci mën di dégg ajaratu Ndeye Mbacke Diop wax naa la ko mbooloo mooy doole l'union fait la force. damay xëy na mu ngi décorté di bi am ci week diggante Dandy Fall ak ki xam ne mooy Dame Sène diggante Sokh ak Gamou Gueye fils de Zardo Baye Fall ak Amboy. Euh, moom moo ñëw euh, andi xalaatam ci combat yi war a am ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, week-end bi. nee na combat bi nga war xam ne moo war a dox ci diggante Sokh ak gàmmu Gueye nee na ñoom ñaar ku ci gën a gaaw sa moroom rek mën ngaa def li nga xam ne moom mooy différence su combat bi wante bi ñu ko laajee ci diggante Aboy ak Fils de Zal nee na combat boobu moom 50 50 la kenn ëppalewul sa moroom dara te ñoom ñaar dañoo bëri lu ñu nuróole te combat nee na dina gis mën nañoo gis tamit combat bu neex wante nee na daam seen Sène ak Ndandi Fall nee na Dame Sène poam war naa mën a def lii di différence ci boobule combat. te loolu nag retour bi nga xam ne mooy ba ca Pikine mu nar a dëppaat ci làmb nee na pare na bëri xale yi ndaw dawaa di. Mourou Anta rax rax raxaan sa laa wax. moo yëkkate yooyu la kàddu Zal Mbaye moom mooy coach Modou Anta nee na gannaaw ba leen proposer ki nga xamante ne bii moom mooy Baboy ñoom d'accord nañu ba tax na ñi ngi wëyal. négociation yi seen diggante ak staffu Gaston Production ku ci mel ni Abdou Lahad njaay ak ki nga xamante ne bii moom mooy makankan ñi ngi waxtaan mais nag dara sotteegul mais am na yaakaar ne combat bu war a mën a nekk lay doon. te noonu nag les lambeurs de Gandia Fama à Béthel bi ginnaaw bu ñu jógee drapeau du chef de l'État ci moom daal di koy teeroo comme ni ñuy teere ko comme ni ñuy teeroo teeroo buur mu bég kontaan ba tuur li nga xamante ne bii mooy ay xéewal. di jooy ñu ngi gis ko ci ay vidéo yu bari muy jooy jooy ya nga xamante ne bii mën nañ wax ne jooy bànneex la waa dëkkam yépp génn teeru ko comme ni ñuy teeroo buur gàn gànja di mbër ma nga xamante ne bii mbër mu mët a bàyyi xel la amagul combat arène mais wax naa leen ne mbëru gox la amateur yi war nañ ko bàyyi xel tëggal ko combat ndax mbër la ma nga xamante ne bii mbooloo mu baree baree topp ci gannaawam. di euh, jaareer nekk la ñu jëm gala de moo fa am ki nga xamante ne bii moom moo ko tëgg mooy Thomas production incha allah euh, samedi la war a am ki ki ñu tuddee làmb ji nag kooku mooy Treize Faye moom mooy marraine bi nekk combat nekk nekk gala de lutte traditionnel ba nga xam ne waa jaareer yëpp ñu ngi koy bàyyi xel. sum production ki ko jiite mooy Abdoulaye Diop mooy patron bi la 13 juin foofu ci adresse Senghor incha allah ñu fa yéene fa décorer delloo fa njukkal ki nga xamante ne bii moom mooy Maadu Ngiraan bu Jilaas wante ki nga ñi nar a animation bi moom mooy Abdou Ngodo ak ki nga xamante ne bii moom mooy Mbayang Lum wax naa la ko sànq lutte simple daal fa ngay gisee bëre pur fa ngay gisee lutte pur fa ngay gisee. Euh, fa ngay gis fa ngay gisee aada ak cosaan wante fa ngay gisee ay xeeti ay xeeti bëre ya nga xamante ne bii foofu kese nga ko mën a gis. Uh-huh. mu nekk combat ba nga xam ne amateur yu bari ñu ngi koy xaar di ko bàyyi xel diggante Tapha ak Boy Niang war a am le 8 août nag incha allah bu ci yàlla àndee fële ca arène nationale Leewtoo production taxawal ko fi nii lëkkaloo na ci. ak TFM ngir lépp la nga xamante ne bii promotion événement boobu la rek incha allah ñu ànd ci ak euh, TFM ak Leewtoo production ak Leewtoo TV incha allah di leen wax ne lépp loo leen soxla ci ñaari mbër yi lépp loo leen bëgg ci ñaari mbër yi danañ dan dem seeti seen i entraînement dem seen i gox-goxaan xool la ñaari mbër yi seen état de forme fu ñu toll waxtaan ak yéen loolu lépp ñu ànd leen ko ci lewto TV incha allah mbay Babacar ak Ndeye Mbacke lay doon. pendant ak après combat yëpp di ngeen ko am fii ci Leewtoo TV ak TFM allah mbay loolu moo nekkoon li gën a si bopp xibaar suba jàmm yal na yàlla dolli jàmm suñu réew mi dolli ko ci àdduna bi. mu noonu dama di jaajëfal bu baax di am contentement ci yéen bu baax a baax dama remercier bu baax damay remercier sama garaan bi Bilal kontaan ci yow lool Mansour Fall bég naa ci yow di sama jigéen di doon góor gi Aïda Diouf ndax di ko jaaree naa ko yàlla rek di bëggee ñëpp di sant ñëpp di bëggee Leewtoo TV di nuyu borom kër gi Pape Thialis Faye di ko ñaanal jàmm ju bare bare baax na baax maa ngi bëgg ci yow noonu laay def tàggatoo ak yéen ñoo leen di daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV moom léegi ñu ngi attention. ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin na ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na ko